Eh, damaa sonn suba ba léegi maa ngi man dama laa koy gis non suba ba maa ngi wax man dama laa nomb man dama koo nomb man sama waay la waaw <laughs> kay <laughs> man dama koo nomb ba pare maa la raw tey noo indee Abdou Diouf wala Macha indi tey tëdd fil ñoom ñaar ñëpp Macha ak Abdou Diouf tey loolu indee tey laa la mën a laaj kenn waaw wàccaay nañ nekk nañ ci wàccaay wàccaay yu jaar yoon leen rek moo des yàlla suñu borom yal nañu yàlla may ndam tey comme ni ñu ko maye woon dimanche bi blessé. gis nañ tey Abdou Diouf tey indi na beneen Abdou Diouf gis nañ tey ah Abdou Diouf tey nag ñëw na ci làmb ji tey. waaw bokk na bokk na lu ci des nag moom mooy yàlla suñu borom. yal nañu yàlla suturaal tey waaw. wala guerre lan la lay xaar ngay wax essai nii. xam nga dama doon entraîné na pour cent. waaw wàññi naa ko ba def ko 5 pour cent nag léegi xanaa ah, gars yi dinañ ñëw. da ngaa wàññeeku nii. waaw wàññi naa. <laughs> na nee na dina ko dégg na wàññi na man fa laa na ah <laughs> waaw Gris Bordeaux Lac de Guiers Gris Bordeaux la di combat bu neex parce que damaa xamul la lu gars di xaar loolu Lac de Guiers Gris Bordeaux bërë maa Gris Bordeaux waa desere laa bëgg a bërë ah jëlul tamit lamb la waaw moom la jàppani amit